premier jour bi daf ni xamul lu ko fi indi bañ ko waxee li ko fi indi mu ni mi ngi dem jëli firnde yi moom Ousmane Sonko mu ni nañ ko may mu dem këram jëli firnde yi te suba sa mu ñëw ñu laaj ko mu ni naam lii moo ko wax waaye sax dama juum waa ji ko waa ana firnde yi mu ni firnde yi moom dafa juum ci IGE ak IGF. IGF bi indi ko te mi ngi yor classeur mu ne ko bu ñu demee ba ca juge ba te moom mii sax defe naa wax ko ni ko bu dofee bañ dem ca juge ba li koy dal dina gën a garaaw li may wax ni yëpp ci PV laaj ko wax avocat yaa ngi toog bu fekkee ñeme na ba am fitu dem procès dina gis. dinañ wax leneen leneen yeneen wax yu dul waxi rapport daal di jël classeur am ay preuve ak firndeem dem ñi ñoo xam yoon ku ci am laaj nga laaj ko nan lañ ko cité man def mu procédure droit man seetal sama der laa bëgg ak wan askanu Sénégal ñu ko kii fenkat bi loolu dooree mu jógee dig ak citation waa këram yëguñu ko ay xaritam yëguñu ko képp ku nekkaloon yëgoo da ko doon nëbb ba muy dugg dig da doon nëbbatu da doon nëbbatu di raser mur yi pour wax leen nit ki ngeen nit ki ko séqal nan la mel ma leen di wax firnde jour ba mu wuyu ji dig lépp lu yeew yi amoon responsable politique parti bi mu bokk lépp lu amoon ci responsable politique jour boobu yaa ngi buntu dig di jàppale ñaari député yu bokk ci ñoom yuñ jàpp Ousmane Sonko lëmasu kaalaw nëbbatu ni kaña dugg biir dig seetiwul sax député yi parce que ñemewul wax leen ko donc ba ñuy commencé da doon ni mën na koo lijjati bañ ko ko siiwal parce que moom wóor na ko wóor yàlla ni que li mu wax dara amu jóge ci loolu ñu cité ko bañ ko cité mu xam ni bay woy na mbuus mu commencé naan ay yëguma ko ay convoqué wuñ ma yàlla seede na ni que procédure bi amul dara luñ ci def loo xam ne dañ ko def ndax man dama am ndomba tànk wala dama bokk ci parti politique lépp ci yoon lañ ko teg mu xëy suba teel ñu convoqué ñu le deux mu xëy suba teel daal ni moom jotul convocation huissier bi ko yóbbuloon convocation muy wërloo wër ak moom bu demee siège am woo ko mu ne ko maa ngi sama kër bu ñëwee këram mu ne ko maa ngi sama siège bu ko woowee mu ne ko maa ngi Ziguinchor bu génnee leneen lay wax ci mujj gi mu ne ko jox ko sama gardien moom moo wax ñu jox ko le am fitu taxaw ci sénégalais moom moom gisul convocation déggul convocation mbir mi dama ciy sant yàlla parce que ñu bari dañ ciy dugg ciy sant parce que ñu bari dañ ciy na ci ñoo xam ne amoon nañ cofeel ci moom wala foogoon nañ ni que lu muy wax am na bi ñu li xew ci jëf bi xeeb nañ lool donc man xeebu ma ci am am na ñu foogoon ni lépp lu mu wax téye na ko yor na ko ba ñu yëgee am firnde ni que lii la def ak huissier ñoom dañoo génn ci moom man de preuve laa laa jox ba tey ci waxtu wi Ousmane Sonko andiwul benn firnde buy wax ni que moom document yooyu mu téye woon am la léegi nag man damaa gëm sama yoonu réew damaa gëm kuréel yi téye sama réew damaa gëm institution yi téye sama réew damaa gëm république donte nag jullit axan la mais damaa gëm république parce que ci loolu la nekk nit a ngi nii koo xam ni moom nee na la mu gëm booy jiiñ nit da ngay téye firnde ba doo ko jiiñ ba pare sax dem wuti ko nit a ngi nii koo xam ni jiiñ na bàyyi jàmbur yaay jàmbur di dafa luubal vingt-neuf milliards ca moom am na firnde te mu wóor ni ko waxam dina egg fu keneen egg loolu moo tax nit ñu mën fi gis ku mel ni kii parce que waxam fa muy egg jot nañu wax fa waxam di egg fenkat la egg fa tey ba fii ñuy wax ak ñu ngi sant yàlla parce que yàlla may nañu ndam ci moom dañuy sant yàlla yàlla may nañu ñu setal suñu den yàlla may nañu bépp tuuma bu mu wax ci yëf yii nii yàlla wane ni que dëgg ay waxam wane ne dëgg waaye tey yoon bi ñu gëm tey am na ni mu jóge nag mooy gàkkal suñu kuréel yi amul corps constitué bu Ousmane Sonko saagawul juge yi ñoo bokkoon ak moom classe ñoo bokkoon ak moom école moom moo leen gën juge yi baaxul kenn xamu ci dara kenn ci liggéey corps des avocats dañ koy xeex parce que dañuy suspendre ay avocats Sénégal euh, bëgguñu lu jub parce que moom bu waxee dara euh, euh, nit ñi dañ ko war a def ndawu Sénégal da ngeen a irresponsable parce que léegi bu leen woowee kaa leen ñu toj kenn du génn donc ay défaillant ngeen mooy Ousmane Sonko kooku mooy Ousmane Sonko tey ngoram mayu ko mu génn wax justice parce que jàpp na ne que moom comme que yaakaar na ni yaakaar nag laa wax loolu dinañ ci dugg après borom xam-xam yi war na mën a présenté wu moo tax mu tiit xamul lu muy def moom mu àndal ak ñi mu taxaw damay wax bii tey Ousmane Sonko fekk ak loolu ko wax su dëkk nga ko teg parce que yoon àtte na bu tribunal nee na Ousmane Sonko fenkat la tey Ousmane Sonko dencal dara yorul benn preuve ku ko wax waxoo wax nga dëgg ku ko wax juumoo tribunalu Sénégal atte na ko tey Ousmane Sonko dégâts yi muy créé ci dëkk bi institution yi muy saaga wane ni nga lam wax méngoowul ak lu am weneen fekk ko donc suñu mbokk yi dañ si xel nit a ngi nii koo xam ni ba fii mu egg si tey ñu ngi jàpp yéen egg na fu kawe ba opposition bi ñenn sax ragal versé yoon assumer seen bopp jàpp ne que moom day gagné moom day nekk président ñu dem topp ko ba mu leen di xëcc ci lu dul dëgg jungeen jungeen ay fen mënul dëkk jungeen parce que fen lu mës a féete kaw dëkk donte yéeg ba day kawe rek mais daan bi day gën a métti Ousmane Sonko daanu commencé daanu commencé na parce que tey képp kuy sénégalais xam nga ni lam daan tiitali nit ñi mënu ko boobu ba léegi mi ngi woote tey képp kuy sénégalais xam nga ni jeunesse bi muy woo ak ñi ko topp ci coobare boppam pour yëf yi boppam kese woowu leen pour mi jub woowu leen pour mi dëkku woowu leen pour mi woowu leen pour programme da leen di woo que moom dafa tiit def na njombe yaakaar na ni que yoon dal ci kaw mu def ko ñun ñoo ko gën a doon gor parce que beneen magistrat waxuñu parce que dañoo nangu